salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki réew mi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara maa ngi toog ak imaam Babacar Sylla di duñu njaay bu sàndaga toog nii ci sunu ginnaaw li waral ñu def euh, vidéo bi nag mooy mbir moo xam ne dañ ko gis mu xew fële ca tugal mm-hmm. te mu concerne nanu nun en tant que ay citoyen sénégalais mm-hmm. waaye en tant que ay nit ñuy wax aw nit di leen déglu rawatina seen wax li ci ëpp mu jëm ci diine wala lépp sax di dellu ci diine dafa am lu nu diine jàngal imaam mm-hmm. mooy saaga mm-hmm. dafa xaraam ñu gis sunu président mm-hmm. am lu mu def loo xam ne nii ci njëlbeen gi da nga naan entourage bu ko informé wul moo ko waral waaye ci mujj gi da nga naan mm. xam nañu ne ab saagakat la nu nekkal Mhm. soxlawu na du tudd turu waa ji ak famille saaga mhm, mhm. li nu tax wax rek mooy ñaawlu en tant que koo xam ne nii su sunu tur lay demee ci bitim réew te président bi muy dem France ñun ñoo ko paasal man sama ceeb ba may jënd ak sama diw ga may jënd ak facture ya may fay am na luñ ci participer loo xam dafa dugg ci paasu président ak ñamu àndal ñëpp dem Paris sunu dëkkee di ñaawlu kàddu yu bon ay saaga ba moom ci boppam en tant que président ci fan yële ñu dégg ko. Mm. muy ñaawlu liy xew ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ba ku mu neex nga sosal nit ku mu neex nga saaga ko. Mm-hmm. bay wane ne am na yéene pour loolu saafaraw. Mm-hmm. loolu dafa waroon a ànd ak saagakat yi. nga xam ne loi boobu jugoon. wala liy réglementé loolu noonu le saagakat bu mel ne bi ñu gis mu toogal. dana war a bokk ca ña loi ba. di dal ci seen kaw. léegi loolu noonu lay yeggaguñ ca ñu gis saagakat boobu noonu la. Mhm. affiché wu waxuma sax di wax. Mhm. président di wax. Mhm. wala muy waxloo. président wala soxnaam. waaye dafa jaaduwul ab saagakat di toog ak sunu président. ak lu mënti xew. moom la yàlla dogal moom moo nekk sunu président. ku mu neex ku mu neexul. man Makhtar Sarr imam Babacar Sylla Ndiaye Sandaga. imaam yi. xalifa yi. médecin yi. secteur yëpp. président Macky Sall moom la yàlla dogal moom mooy yi réew ah, kooku ak lu mënti xew am na ñoñ mm-hmm. am na ñoñ mm-hmm. waruñoo affiché wu ci wetam rawatina kuy daggi saaga ndey ba nga xam ne gis nañu sax ay vidéo yoo xam ne xamuñoon ne waa ji mm-hmm. mos na koo saaga sax moom ci boppam saaga njabootam nga xam ne loolu na le kuy sénégalais war na la naxari léegi loolu imaam nan lañ ko mën a comprendre nan lañ ko mën a jàngatee ak ëllëg ñu ne kenn warul saaga kenn ba ku fi saaga nit rawatina kilifa. Mm-hmm. war nañ la dugal ci kaso bi tëj la. ka nga xam ne moom lañ jox sañ-sañ bu toll ne ministre de la justice moo ko mm-hmm. yilif. Mm-hmm. procureur de la république moo ko yilif. kooku noonu le war a yar saagakat yi. bu demee ba ab saagakat toog ci wetam ku ko saaga woon. di ko wax loo muy wax. imaam lool noo ko jàngatee. ni ma ko jàngatee mooy oustaz dama cee tiit. li tax ma tiit ci mooy loolu dafay wane jeexug valeur maanaam ñun valeur yi nu amoon nga xam ne ñun wolof. Euh, aw saaga ci boppam pour ñoom ñu jaar ci sax jafe-jafe la ci ñoom hmm. maanaam pour nga gis ci nit ku diiñ ku sérieux nga dégg muy dagg aw saaga jaar ci digg ba lu jafe la ci ñun ndax rek dignité bu yàlla def ci ñun tey bu ñu demee ba pinc mii di Sénégal nga xam ne kàddu yëpp dañ ko daan wodd tey ngay gis nit ku def nii vidéo taxaw di saaga ndey ni direct yegg ba ci way juram te wax nga ko léegi ay jullit lañ mhm. même bu dul dara téere bii ñuy tàmbalee jàng fiq mooy Abdourahman mhm. dafa bokk ci yim ñu teel a jàngal ne lu xaram la ci jullit mhm. mooy ngay saaga sa mbokkum jullit waaw wasab bihi ngay ŋàññi jullit nga di ko saaga surtout ku la deful dara nag ñaareel bi ci des oustaz président de la république ab institution dañ ko war a protéger mais est-ce que est-ce que protéger institution bi mooy rek rëdd benn article quatre-vingt ñu wax ni képp ko àndul ak moom boo ko waxee lu ñaaw rek ñu dugal la ci kaso bi. Hmm. est-ce que loolu mooy protéger ko déedéet. mooy ñu fexe ba président de la république institution boobu am na ay boole puy yoo xam ne duñ ne ci wetam. Hmm. ab sàcc waru koo jege. Hmm. warkat waru koo jege. njaalookat sax waru ko jege. Euh, saagakat waru ko jege borom jukko yu suufe yooyu écarté leen ñu sori institution boobu loolu ci aar institution bi la bokk. nit nag mën naa nëbb di def lu bon loolu yàlla rek a xam hmm. mais képp ko fësal sa caay-caay ci biti war nañ la soriloo institution yi nu am hmm. loolu mooy ormal institution bi d'abord hmm. parce que loo ay ci kaw la rek waaye pour man aar président aar présidence bi ci boppam muy fauteuil bi mooy ñu fexe ba nit ñu suufe yii di saaga ay ndey koo xam ne yow bi mu la dalee saaga matagul at ngay téye président de la république nga wax de saaga te oustaz nga baal ma li ma jaaxal ci wax ji soxna président ci boppam da koo laaj ne ko yow lu tax nga daan saaga président mu ne ko dara damaa juumoon rek lii ndax lii mooy lay wi hmm. léegi nag li garaaw mooy moom vidéo yooyu da koy utiliser de hmm. pour jaay boppam hmm. moom day photo ak président di live ak président pour jaay boppam àddina ne leen maa ngi nii man nag président laay yóbbante li may wax moom moo doon bañ ko saaga ci internet bi ni lii ëpp na julli na korite wax ko julli na tabaski wax ko dem na kër diine yi mu wax ko fu nekk di ko jooytu ne dinaa ko régler ba pare ñu seen ko muy toog ak saagakat yi li ma koy laaj mooy ndax da leen a xamul mm-hmm. ndax dafa xamul ne ñii ñooy saagakat yi muy wax ba tax moom mu dem may leen chance ci jëm moom ñu toog ak moom di reerandoo ak moom mm-hmm. di def ay live direct muy wax ak ñoom li gën a garaaw oustaz mu imposé président mm-hmm. ne ko président ndax yaa ngi gis liggéey bi mu ne ko waaw ndax kontaan nga ci mu kontaan naa ci sa liggéey bi ab saagakatu ndey poussé président ne ko waxal ndax kontaan nga ci liggéey mu ko kontaan ci sa liggéey lii ku mu jaaxalul man xaw ma lan moo lay jaaxalati. Mm. ñi wër entourage su président. Mm. dégg naa la sànq oustaz nga ne. Mm. jooy nañu birinoo <laughs> dëgg la loolooy dëgg. Mm-hmm. parce que man bii laxisme bi fi Bruno di nekk kenn daaw ko gis. lu toll président de la république ay saagagatu nay di ko jël di ko laayif loo. Mm-hmm. di ko wax loo ay wax yu suufee. lii entourage su président nañ ci jóg. Mm-hmm. en plus nañu protéger institution bi. loolu du mooy di tëj kaso ku la neex ak ku la neexul. protéger ko mooy ñu fexe ba. ñu suufee ñi hmm. dootuñu jege président incha hmm. man daal loolu laa gis ne bu ñu ko deful hmm. ñi ngi jëme réew mi ci guuta waaw yan ci yàlla musal nag macha allah jërëjëf euh, imaam defe naa dana laaj yéen ñi nga xam ne yéen imaam yi ngeen xutbawaat ci waaw waaw defkatu émission yi def ci émission ñëpp dénoncé ko naqarlu ndax fi mu jëm musiba la man bu yàggul maa ngi def aaxiru zaman boo xam ne maa ngi doon wax rek ci bonaayu saaga eh? saaga laa doon wax bonaayam ni mu bonee ak mm. musiba yi ci ne mm-hmm. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam toog naag saxaaba yi ne leen kenn ci yéen mm-hmm. mm, bu mu saaga woy juram ñu ne ko naka la nit mën a saagaa woy juram mm-hmm. mu ne mooy da ngay saaga woy juru jàmbur mu saaga sa woy jur su boobaa yow yaa saaga sa woy nga xam ne saaga dañ ko dugal ci kabair ci bàkkaar yu mag yi lañ ko dugal te nekkul première fois mënoon nga ne wax ne sax bu njëkk ba xëy na euh, njuumte la te tayeef la am na ko jigéen koo xam ne fii la nekkoon di saaga ci internet bi mm-hmm. man mii ak samay moroom yu bari sosal na leen saaga ànd sàmm jiko yi ku ne mu saaga la mm-hmm. ku ne mu sosal la kooku lañ toog gis ko mu nekkaat ak président mu koy raf muy rafetlu liggéeyam kontaan naa ci li ngay def ñu teg ne fa lay yem kii ñëwati moom nga xam ne nii tey kenn umpalewul ci àdduna bi kàddoom yu ñaaw kàddoom yu bon saaga ak fu mu mënti jëm ak ci ku mu mënti jugee lu bon la mm. léegi rek maa ngi la koy wax ci ginnaaw man la man en tant que citoyen mm. Mm. jomb naa di toog ak jëmm yu mel noonu man dama ko jomb man Makhtar Sarr waxumaa ñu may wax loo ci seeni waxukaay jomb naa di toog ak jëmm yu mel noonu nga xam ne ni ay saagakatu ndey la nu ñëpp xam leen am na ko mën na rëcc le sax léeg-léeg wax kàddu gu diis wala ah. kàddu gu ñagas wala nangam mais koo xam ne nii moom waxam amul bopp te booy déglu genre bu mel noonu waa tey boo koy déglu bi muy wax ak soxna njiitu réew mi da ngay xam ne bopp bi ndox nekku ci ñu baal ma ci waxit bi koo xam ne mënoo poser question sénégalais yeeg fi ñu toll ak li ñuy dund ba ci ki nga xam ne nee nga am na lu liggéey mënoo ko ci poser question lu moom naa ko waxal rek pour wax pour wax nga xam ne bopp yi seen bopp yi lii fanaanu ci ndox nekku ci genre yu noonu man jomb naa di toog ak ñoom waxumaa ñu may wax la rawatina nag ab institution mbir mi du Macky Sall en tant que Macky Sall mais président la ñu wax vraiment président mhm. la mbokk ma waxoon ne du nit a mat a sàmm mais seize bi mat a sàmm looloy du nit a mat a sàmm mais seize bi moo mhm. mat a sàmm mhm. mooy ëllëg président day jug ci séew si bi keneen toog fa tudd président président kan Sénégal la ñuy wax kuy senegale kuy senegale mm-hmm. imaginer réewum valeur mm-hmm. jom mm-hmm. kersa jomb-jomb yiw mbaax euh, teraanga réewum valeur boobu na ku ko mën a jiite di bàyyi nit ñu tekki tekkee di ñii nekk ci sa wet di affiché wu di la wax loo di wax mais lool noonu leen lu rusloo rusloo wallaahi waaw ba tax na ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy dénoncé te jaroon na lu mel nii sénégalais yëpp manqué ne entourage du ah, président na fa ñëpp jóge loolooy dëgg am na leen loo xam ne sax président nañ nangam ak ay élection moom boobaa la ñuy xaar boobaa ay élection mais dafa am loo xam ne nii mm. dafa jaadu woon sénégalais yi ne doy na ku entourage ba na fa mais kañ ngay mën a revendiquer loolu mooy nga yëg ne kat ah yi kat dañoo trompé président mooy dañoo indi waa ji mu buruxlu mm. affiché wu wax mais bi mbir yi continuer nga gisaat vidéo yi di répété wu mais da naan président xam na li xew xam na ne waa ji saagakat la mm-hmm. moo bëgga a toog ak saagakat ci wetam loolu nag lu ruslu la waaw parce que dañuy jaay seen bopp di leen influencer pour wan leen ne leen mën naa leen a xeexal ji terrain bi ca fan yi saaga léegi nag pour yow nga jàpp ne comme am nga ab saagakat mu lay saaga jil foog nga may ko tuuti ci sa bopp mooy nga may ko temps boo xam ne bu ëllëgee loo bëgg mu défendre. ana saagakat bi nekkoon États-Unis lu tax ñu indi ko ah xala mu ngoog parce que da daan saagawaate ay ndey. kese deful lu dul saagawaate. Mhm. ñu defi pexe ba delloosi ko ci réew mi tëj ko ci kaso bi. Ah, gis nga mais foofu lañ waroon a jaaree yar képp kuy saagakat. Ah, kooku bokk na ci ñi yokk saagakat yi nekk ci internet bi yàlla xam na ko yàlla léegi imaginel ñooñu yow nga waroon a jaar foofu dagg reen bi ñu ne ah wax dëgg jaadu na mhm. da am na loo xam ne nit mën na wax li ko métti kàddu ko sax mën na diis waaye am na foo xam ne nag bu mu fa yegg wa quulu li naasi xusna yàlla nee na waxal ñeexal nit ñi lu rafet mhm. mais léegi nga ñëw ñu ne ah wax dëgg jaadu na ndax nag ba nekk di saaga nit ñi di leen mhm. sosal di wax lu ah. leen neex ñu bàyyi la ca loolu warul am ñu ne waaw góor ñu xëyati gis saagakat yi nga xam ne ñi ngi saaga ku dul yow ba yow ñu saaga la nga jël ñooñu noonu la ñu affiché wu ci sa wet rusul na lool wallaahi te ñaaw na lool mhm. te xeebu na lool mhm. ñu ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem jërë ngeen jëf jërëjëf imaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu